salaamaaleykum nuyu na leen siyaar na leen fii ci Fall 94 fi Sénégal ba léegi rek yéen a ngi gis li nga xam ne nii moo di xew-xew yi day am ci réew mi muy diggante takk der yi ak xale yi ci sànnante taal toj yàq rek voilà loolu na ci parce que ñu baree baree bari ñu xam am réew ni muy déroulé ñu bari doon nañ ko wax nga xam ne ñoom par parloo réew mi rek moo leen di ñor. saa su nekk dañ ko doon wax ci suñu discours jàmm ñu bàyyi xiiroo ŋaayoo te waxtaan loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne bëgg sa réew la mais nag su ñu demee bës xale yi moom nu sës dañuy sànnee ko toj ak yàq loolu doo mën a yëf waaw ba léegi rek ñu delloo si leen di wax ne mën nañoo bokk ndey bokk bàyyi di xaajandoo dóorandoo Fall 94 Walf Sénégal kan leen ko ci Fall 94 Walf Sénégal